asalaamaaleykum mes chers internautes solution TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax baax di leen jëfal ah, ci ni ngeen ñuy toppee à chaque fois rek suñu ay programme ba tax na. au cœur de euh, l'actu tey nag dafa daal di am mbégte euh, daal di dalal euh, Bassirou Samb bokk ca taxaw Sénégal tey nag ñu daal di waxtaan waxtaanee li nga xam ne rek moom mooy actualité politique bi laataa nag ñuy dugg ci biir li waxtaan ma daal di ko jox kàddu gi rek mu daal di nuyonteeg ñuy bàyyi xel Bassirou ñu ngi leen nuyu bu baax. ne maa ngi lay nuyu di am mbégte di dellu si fi nga xam ni mooy solution TV. Mhm. xam ni dañu euh, nekk ci sunu biir commune donc je pense que c'est nos administrés nekk fi nga xam ni mooy. Euh, Grand Yoff di nuyu toute l' équipe qui tourne autour de votre site internet mhm. mais di nuyu askanu Sénégal yi nga xam ne yëpp ñu ngi bàyyi xel jamono ji suñu waxtaan mhm. di ñaan yàlla lépp lu ñu fa waxtaan rek yàlla na doon jàmm mais di beral loxo fa ma jóge muy waa Grand Yoff amiin incha allah ma lay jaajëfal bu baax a baax ci ni nga répondre bi les invitations di la ci jaajëfal euh, comme ni mu ko waxee tantôt dinañ waxtaanee li nga xam ne rek moom mooy actualité yi la nga xam ne rek euh, moom moo ci gën a fës dañuy daal di dugg ci li nga xam ne rek moom mooy mbirum amnistie la ñuy daal comme que jamono ci actualité bi moo ci daal di poussé ñu gis ne ni ki démb assemblée nationale daal dinay adopté boobu leen loi bi nga xam ne moom mooy effacé euh, fee yi nga xam ne amoon na fi février 2021 ba février 2024 mu nekk mbir moo xam ne nag ñu ci bëri d'accord ci ba yéen waa taxawu Sénégal sax d'accord lañ ci loolu nga xam ne moom mooy mbirum am na si boobu na nga jàngatee bi waaw li ñuy jàpp rek mooy c'est encore posé waat démb. Mhm. et et c' est malheureux parce que cette législature là malgré que ñun ñëpp dañ jàpp ni durée bu courte la am mais li mu posé ci ay actes yoo xam dafa ñuy ternir l'image de notre nation. Mhm. je pense que ça commence ay être trop. bi am démb nag moo ci gën a ñaaw. Mhm. parce que ñun politiciens yi il faut qu'on apprenne à respecter un peu les parce que politiciens yi ñoo doon woote masse rassemblement. politiciens yi ñoo doon woote rassemblement. ci ay manifestations. am na ay sénégalais yoo xam ne ay ndaw yoo xam dañ ci ñàkk seen bàttan ay ndaw yoo xam ne peut-être dañ doon jóg ngir xeexal seen réew mais ay ndaw yoo xam ne peut-être seen yoon nekk ci woon dañu xëyoon di def seen actualité seen activité ñàkk ci seen bakkan mm-hmm. mais ay ndaw yoo xam ne dañoo jël seen xaalis boole seen guyeeg seen daxaan am def seen investissement yàqu lay ko ci nga gis benn buse buy daw yaraax ñu dóor ci cocktail molotov ñaari nit ñàkk ci seen bakkan université Cheikh Anta Diop temple du savoir lu kenn mësul xalaat mm-hmm. dugg fa dem ci bibliothèque bi lakk ko ay dizaine d'années d'études yooyu yëpp ñu ñàkk ko tey mhm. waa tey ñu xëy subitement nañu loolu lépp nañ ko effacé nañ ko effacé d'accord pardon baax na mhm. d'accord euh, jéggale baax na mais démb sax dama dégg ku wax naan yàlla day jéggale mais yàlla xanaa bu lay jéggal danga koy baal yàlla def naa dana boo ko tooñee boo ko jéggaloo mu baal la mais koo mhm. xam ne tooñu nga xëy xëy rek ni nañ ko effacé doo tax ma jàpp ni c'est une page très sombre de l'histoire du Sénégal parce que jéggal réconciliation apaisement dafa am loo xam ne moo ko war a jiitu mooy vérité. Mm. dëgg bi tey waajur bi nga xam ni amuloon lu dul benn doomam yaakaaroon ci moom mu màgg teral ko tey ñu xëy ñu boom ko mais kooku tey xañ na kenn mënu ko delloo si doomam. Mm-hmm. mais doon na soulager xolam doon na soulager esprit mooy yoon def liggéeyam ñu ne ki ko def kat yoon teg na ci kaw mm-hmm. mais ki ñu yàqal li koy faj tey du xaalis ba nga koy jox mais doon na xam tey kan moo ko def. yoon dal ci liggéeyam donc moo tax ñu jàpp ne loolu tey dañu waroon a leeral toutes ces questions là parce que c'est des crimes de sang et que le procureur de la République le gouvernement nous ont tous chanté que ah, des forces spéciales, spéciales, des terroristes mm-hmm. mais aujourd'hui nous ne sommes pas en sécurité on aimerait bien savoir lan moo xew ci diggante bi mm-hmm. qui sont les forces occultes qui sont les commanditaires qui sont les complices qui sont ces meurtriers tabla rasa effaçons tout oublions tout oubli de baax na waaye bu laluwul ci dëgg mhm. defe naa ni ay xol bu naqare lay indi et c'est malheureux que l'Assemblée nationale du Sénégal voilà. aujourd'hui en tout cas certains députés voté actu boobu et en tout cas histoire dafay retenir képp koo xam ni directement ou indirectement sa loxo dugg na ci jëf ju ñaaw ñooñ mhm. histoire dina ko retenir ëllëg est ce que aussi tamit li nga xam ne wax nañ ko ci wàllu fee yi nga xam ne am na 2021 ba 2024 est ce que ak loi d'amnistie bi li sénégalais yi mën nañoo gëm la nga xam ne moom lañ doon wax non xam nga tey ji xam nga tey ji euh, man bi procureur de la république di def pour euh, euh, conférence de presse bi daf ma mhm. fekk Kigali ma toog ci hôtel bi nii di di añ mhm. mu démarré ma taal ko des amis yi ma fa toogaloon ñi ay Rwanda la ñi d'autres pays ma posé des questions mais qu'est-ce qui se passe bu ma leen expliquer li procureur doon wax dañu doon wax ah lii de il faudrait que ngeen leeral ko. parce que c'est très grave pour la nation. Mm-hmm. parce que ça fait depuis deux mille vingt et un ku wax. ministre des affaires étrangères dem na dans les organes internationaux ministre de la justice même le président de la république qui est le premier des Sénégal nous a toujours parlé que nous sommes infiltrés mm-hmm. récemment dégg nga mu si les politiciens ne s'entendent pas waroon nañu xam lan la kan moo nekk derrière ces forces organisées ku ci laal est-ce que ci opposition bi la est-ce que ci pouvoir la est-ce que c'est des forces extérieures qui manipulent mais le Sénégalais aurait bien voulu savoir lan moo xew ci ginnaaw mais tey xëy nañ un bon jour à travers un jeu de yeux éliminer loolu ni ñu loolu loolu lépp dañ koy effacer. Mhm. dëgg la yoon tey à travers si cette loi passe mooy que yoon effacé na ko. mais on ne pourra jamais ôter de la tête de ce de cette femme là qui habite Grand Yoff génn timis. di dem julli ji ñu dóor ko bal mu dee on ne pourra jamais ôter sur la tête de ces familles là ñi nga xam dañoo xëy seen kër dugg ci bus doon dem ville ñu dóor leen grenade lacrymogène ñu dee. on ne pourra jamais ôter de la famille de Fulbert Badji et de et de l' nga xam ne ils sont. Didier Badji Didier Badji on ne pourra jamais ôter de l' esprit de leur famille. Mm. ñi nga xam ne ñoo leen rey. li leen doon soulager rek mooy ñu xam mais tey à travers loi bi ñu voté démb mais dañ leen a rayaat une deuxième fois et que le président plus muy quitter on a l'impression qu'il va il pose des actes yoo xam ni il ne se s'offre pas une porte honorable est que jàppoon ni aussi euh, moom président Macky Sall dafay jéem a ko boppam ak ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy allié wu parce que euh, ci wàllu fee yooyu li am na ci ñenn ñoo xam ne ñu ngi leen ciy tudd. Mm. ñoo defam déet mais seen destour mi ngi ci biir. waaw mais xam nga c'est c'est c'est là où c'est grave. parce que ñu bari dañ jàpp ni tey xam nga quand on parle d'apaisement de le président Macky Sall 2012 lañ ko fal. 2012 ba tey jii ñu nekk ci lan mars 2024 il lui reste à peu près moins de trente jours mm-hmm. bu doon dëgg-dëgg jiboole moo ko tax a jóg amoon na d'autres moyens de le faire parce qu'il a passé douze ans à la tête de ce pays bu doon pour intégrer des des personnalités politiques ñu duggaat ci jeu amoon na d'autres moyens parce que tey bu defoon abandon des charges mais on on élimine ça bu fekkee dafa am ñu perte seen droit civil mu bëgg leen dugalaat mais am na d' autres yu ñu a utiliser y' a la modification du code électoral y' a la modification de nos textes tout ça c' est des yoo xam ne bu fekkee dafa bëgg a dugalaat ay acteurs politiques ci jeu bi am na possibilité parce que def nañ ko fi su fekkee dafa bëgg a ñu nekk ci kaso bi ñu génne leen tey amoon na d' autres de le faire à travers l' abandon des mais tey à travers cette loi d'amnistie on se pose des questions mm-hmm. est ce que du ñu mu bëgg a protéger parce que nag vous vous mm. xëy yor ay 4-4 jóge ci benn permanence yor seen i jaasi di dóor mais ñi rey est-ce que duñu xam ñan la est-ce que c'est les nervis est-ce que c'est les forces de l'ordre est-ce que c'est les forces dites organisées euh, occultes on aimerait bien savoir réellement qu'est-ce que se cache derrière. mais mm-hmm. on a l'impression que aujourd'hui le président Macky cette loi là elle est éminemment politique il y a acteurs yu ñu bëgg a protéger il y a acteurs yoo xam ne peut-être am na entendement boo xam ne am na et loolu lépp sénégalais yi nag bëggoon nañu xam réellement qu'est-ce qui se passe moo tax ma ni képp ku ci sa loxo laal directement wala indirectement mais histoire dina retenir jëf ju ñaaw ji et que famille yi dinañ retenir ni ginnaaw ba ñu rayee seen doom benn yoon mais rayaat nañ leen une deuxième fois en votant cette loi hier à l'Assemblée nationale. est-ce que vous croyez réellement que ni euh, bii les dañ koo retaillé wala dañ koo taillé euh, ci ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko mi nga xam ne jamono ci ma ngi ca Cap Manuel. du samay wax mais dim boo déggee rapporteur de la commission des lois dafa ni. Mhm. ce projet de loi permettra à Ousmane Sonko. à à à Cheikh Abdou Bara Dolly na en tout cas ñoom waa benn bokk ku ci jël carte dem da naan. sa permettra à Ousmane Sonko de de retrouver donc ñoom ñëpp ñoo ko wax du samay wax donc aujourd'hui nag su fekkee tey looloo am a ah, aw ma ci yaakaar mais su ko Ousmane Sonko nangoo ak waa këram. Mm. mais histoire dina retenir ni duggal nañ seen loxo ci jëf ju ñaaw ji nga xam ne moo am. dem ah mais nag parce que ñoom voté wuñ contre lañ voté. waaw mais nag mais nag xam nga xam nga nag ndax sénégalais yi weesuwul. Mm. nga dem à la veille commission des loi nga ni da nga abstenir. une première. bi ñuy reporté élection yi defu abstention bi ñuy voté modification code électoral defu abstention lu ñu fi def rek da nga génn un non catégorique nga xëy démb on a vu des députés membres de ces partis là du matin au soir quand ils ont la parole personne n'a dit je m'oppose à cette loi même le président du groupe parlementaire qu'est-ce qu'il a dit bañu ñaanuñu ko mais ku ñu ko jox ñu jël en tout cas li ñu recomm li ñu gis mooy c'est pas la coïncidence elle mais bi ñu waxee ni président de l'Assemblée nationale def na pause décision conseil constitutionnel génn ci la ñu gis un non catégorique des députés de Pastef qu'est-ce qui s'est passé entre temps pourquoi ce non catégorique durant toute la journée bi ñuy jël seen kàddu waxuñu ni d'accord uñ à part Guy Marius parce que Guy Marius Sagna a eu l'honnêteté de dire très tôt je suis contre ce projet de loi mais à moom gisuma beneen député membre de cette formation politique bu wax loolu ñoom ñëpp li ñu doon wax mooy li ñu doon wax dara leeru ci on veut savoir ça alors que tey yi fi jàll yëpp Euh, waxuñu loolu donc ci diggante bi daal en tout cas xaw ma lu xew mais diggante bi président assemblée demandé pause quinze minutes mm. décision conseil constitutionnel dugg ci la ñu gis benn changement bu am un an catégorie qu'est-ce qui s'est passé en tout réew mi moom dara du fi umpe les jours à venir vont nous édifier. ok da nga jàpp ne waxtaan dafa am kon ci diggante euh, le chef de l'opposition Ousmane Sonko. Mm-hmm. ak ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall. mais wax na ko. Alioune wax na ko te dégguma benn yoon fu mu démentiré donc nag damay jàpp ni tey loolu Pierre Goudiaby Atepa wax loolu Alioune wax am naa yaakaar ba keroog may dégg moom mu démentir ko am naa yaakaar ni waxtaan am na parce que nag fii Sénégal la tey ay nit dañ leen a tëj ñun ñëpp depuis deux ans on réclame la libération de ces détenus personne n'a voulu nous écouter un bon jour ñu rek comme un jeu de jeu on libère ok on applaudit mais qu'est-ce qui s'est passé derrière yaa ti luy waxtaan waxtaan est-ce que waxtaan amul est-ce que deal dafa am en tout cas gis naa ni daal bi report élection yi amee ba léegi gisuma benn yoon démenti formel bu def mhm. amnistie bi gisuma benn yoon démenti et pourtant barki démb mhm. bi fi recalé yi bindee président Macky Sall on a un démenti sur la page officielle de Sonko disant que oui il n'avait pas envoyé voilà. qu'est-ce qui a fait aujourd'hui pour l'amnistie pour le report des élections il n'y a pas de démenti donc tey jii weddi li Pierre Goudiaby Atepa wax même bu dee gis naa benn waay bu génn chef de protocole jéem a mais keroog ba ñu defee keroog ba ba ñu waxee ni dañoo signé ci proto ci ci spolo yi c'était pas lui qui était monté au mais c'est l'homme en personne à travers ses plateformes dans les réseaux sociaux ok voilà ci li nga wax noonu tantôt parce ci question yi nga xam ne yaa ngi koy wax yaa ngi koy mm-hmm. posé mm-hmm. Euh, moom la sa candidat sa leader euh, ki nga mm-hmm. ba mu ko def fii am na benn euh, maanaam lynchage lañ ko mën a waxee ci réseaux sociaux yi euh, jàpp nekk ne kat xalifa sax bëggul euh, détenu yi génn loolu tamit mu nekk ab mbir moo xam ne dal na seen kaw. xam nga olof day wax ne ah luggukatu jaan jaana koy mujje <laughs> maanaam. olof wax la luggukatu jaan jaana koy mujje <laughs> xam nga yow bu dee ku jóg nga ni baaxul ku waxtaan nga saaga ko. ku waxtaanul sax nga saaga ko. Mhm. waa tey on te pose nga xëy na lu tax ñu la koy laaj. mais on a le droit de savoir. un homme politique su ñu ko otee le droit de poser des questions et de s'interroger son existence n'a plus de sens tey pendant un an deux ans on a réclamé la libération des détenus politiques on nous a jamais répondu un bon jour comme un benn clic on des dizaines des dizaines ñu leen libéré mais on a pas on a le droit de savoir qu'est-ce qui se passe derrière et même ces personnes libérées pour leur dignité ñoom te bëgg nañ xam li xew parce que tey mënoo maa xëy mhm. jàpp ma tëj ma ci kaso bi teg ay charge sama kër ñenn ñi seen i njaboot seen i njaboot tas ñenn ñi seen i wayjur génn àdduna waxoo ci dara tu te lèves un bon jour génnal sans wax lan moo xew mais on a le droit de se poser des questions. Mm-hmm. li gënoon nag mooy quand on pose des questions si tu as des éléments tu réponds mais quand tu réponds par l'insulte par l'invective cela prouve que am na looy nëbbu am na sa conscience loo xam ni mu ngi ci déranger je pense que cette question de Khalifa elle est elle est et elle plus que d'actualité. ok voilà mais aussi ñu gis ni euh, benn euh, combat laa ko mën a waxee wala benn xiiro ak ngaayoo ci diggante euh, Khalifa Ababacar Sall wala ay militants ak ñi nga xam ne ñoom ñooy militants Pastef te it ni ngeen nekkoon ngeen amoon benn àndandoo boo xam ne benn àndandoo bu rafet boo xam ne ñëpp dañ ko lu woon mais ñu dem ba benn moment gis ne dematoo jaaratoo leen taalaw fet mu nekk mbir moo xam ne jaaxal nañ ñëpp yi tam nga loolu sax man <laughs> changement non changement xam nga li am solo rek man ak yow dañoo ànd nañ. voilà damay génn ci biti ci escalier yi laa aw. nga ne ma doo aw ci escalier est-ce que jar na xuloo plateau bi lañ jar nañ damay génn escalier bi laa aw nga ne ma awal ci fenêtre man la duma ci aw jarul xuloo koo saaga yaa ko tooñ donc la amoon je pense que weesu nañ ko ñun parce que la ñu waroon def xam nga dama dégg ñu ni Serigne Babacar Sy daf doon wax ni buñ la tuumaalee. waay bul tontu ñu ne ko looy def mu ni yónni yàgg Et l'histoire nous a donné raison. Ce qui nous accusait de tous les noms, ce qui jetait l'anathème sur Khalifa Ababacar Sall mais Sénégalais gis nañ ces dernières vingt quatre heures ces ces ces semaines dix derniers jours ce qui s'est passé donc man je suis plus que fier de la position du président Khalifa parce que dafa wax ni dans ce pays c'est comme si il ne faut jamais avoir raison très tôt parce que on te comprend pas mais bu ñu avancer lañ la doon bañal les gens en train de faire pire moo tax ñun aujourd'hui on tourne cette page on se dirige vers lan moo war a tax ñu tànn xalifa Ababacar Sall lan moo tax ñu jàpp ni xalifa c'est le meilleur lan moo tax ñu gëm ni xalifa est l'homme qu'il faut pour réconcilier cette nation ñun on veut aujourd'hui faire focus sur ça que chacun jaayu et puis sénégalais yi tànn le meilleur candidat man dama gëm ni le meilleur mooy Khalifa Ababacar loolu dinañ ci ñëw parce que mënuma comprendre seen àndandoo bi nga xam ne àndandoo ngeen ko ci biir coalition Yewwi Askan Wi dem ba benn moment changement daal di ciy am sànq say biir wax damay dégg kon da nga bëgg wax que ni maanaam moo traitre bi nga xam ne dañ leen ko assimiler ak taxawu Sénégal danga jàpp ne que ni mbir mi dafa mujjee wëlbatiku dem ci beneen camp bi mais mais mais mais mais mais mais mais ñëpp gis nañ li xew tey démb assemblée nationale c'est l'illustration parfaite de ce qui se passe il y a des député qui ne trouvaient même pas les mots pour parler parce que quand tu fais la grande gueule di saaga nit ñi xas nit ñi parce que nit ki à moment donné il a su défendre ses intérêts il a su taxaw mm-hmm. mais tey jii que tu te trouves ci même posture bi tu te rends ah ñi nga doon saaga da leen doon tooñ donc tey jii je pense que dama gëm waxi Serigne Babacar Sy bàyyi nañ yàgg tey sénégalais yi gis nañ hmm. il y a beaucoup de sénégalais qui nous insultent qui nous appellent ces derniers pour nous dire wax leen xalifa mu baal ñu àq ah wax leen xalifa Sall mu baal ñu àq parce que on nous avait induit à l'erreur donc tey nag xalifa ñi bokk ci Pastef mais ñi bokk un peu partout opposition sénégalaise bi et et c'est le c'est c'est le lieu même de de poser ce mutisme de Yewwi Askan Wi qui très prompt à pondre des communiqués et dégguma leen ci am loi d'amnistie bi de et je pense que les Sénégalais nag aujourd'hui commence réellement à savoir qu'est-ce qui passe koo xam ne lu jógoon nga def communiqué contre xalifa Sall contre waa këram dialogue bi mais tey on te parle d'une loi d'amnistie personne génn nu ñu def communiqué lañ ñu doon bañal à l'époque ci dialogue bi mooy dañoo jëloon une position personnelle tey kenn ku ne da jóg jël position personnelle mais tu n'as pas entendu yow euh, apaisement bi nga xam ne président Macky Sall woote na ko jàmm ndax parce que euh, jàmm ne a fekk si euh, président Macky Sall kon kay bu soo ma ko baalee <laughs> dama ko bëgg a bàyyi ci ginnaaw <laughs> parce que tey j'ai quelques jours devant moi je dois convaincre davantage les Sénégalais <laughs> sur sama candidat muy Khalifa Sall voilà surtout loolu muy ci 24 mars bi nga xam ni euh, conseil constitutionnel wala président Macky Sall moom la tànn conseil constitutionnel daal di ko ci euh, fekk si mu nekk date historique boo xam ni euh, Sénégal dina am possibilité tànn ka nga xam ni moom moo ko war a jiite seen candidat di Khalifa Ababacar Sall bokk ci 19 candidats yi nga xam ne conseil constitutionnel la di retenir i tamit 2024 bi nekk tamit lu am solo ci moom. ndax amaana bu ko rawee tamit après yeneen élection dina nekk loo xam lu jafe la. jafe ko. dina jafe parce que Khalifa Ababacar Sall on peut dire que ni élection yi nii mën nañ wax que ne moom moo ko daal dese. ci wàllu loolu loolu de sa xalaat la ak bëgg-bëggu ñenn ñi. <laughs> mais il faut juste aller voir. non il faut même non dama ne sa xalaat ak bëgg-bëggu. ñenn ñi mais daa daa ñu ci ñëw. parce que bor moom du am bor du am rakk. en tout cas. <laughs> Mhm. Sénégal dafay dem vers un tournant décisif. un tournant assez important. parce que de 60 ans maintenant c'est la première fois ñu dem élection président sortant bokkul qu'est-ce que cela sous-entend on a une meilleure visibilité c'est-à-dire on avait l'habitude de dire tout sauf diw na fi jóge na fi jóge mm. mais cette élection la sànn ne prospérera plus on la l'habitude d'aller à des élections démettre un nom mm -hmm. mais ça on va pas démettre mais on va élire parce que les 19 candidats ñoom ñëpp kenn du ci président sortant donc li muy war sénégalais yi mooy. Mhm. il faudrait beaucoup plus de lucidité dans ce qu'on fait. et dama jàpp ni les douze ans du président Macky Sall ont été au moins li Sénégal amoon mu gën a fort mooy tissu sociale bi. li mhm. Sénégal amoon muy gën a fort mooy booloo gi li Sénégal amoon mu gën a fort mooy. fondement de la république yi yooyu yëpp le président Macky Sall kase yàq ko parce que aujourd'hui Sénégal rek ngay gis tey bu njëkk dañ doon wax Senghor daf ñu mayoon li ñu waxoon le commun vouloir de vivre ensemble maanaam man ak yow bu ñu toogee on ne va plus regarder séeréer nga joolaala la couleur nga euh, euh, tukulóor nga wala mankaañ nga murit nga wala tijaan julli wala déedéet mhm. li ñu bokkoon ñun ñëpp te mënuñu ko seddoo mooy le Sénégal donc cousinage à plaisanterie mais ñu commencé gis tissu social bi di déchiré wu biir famille ki suñu kilifa yi nga xam ne dañ leen a joxoon cër lool. Mm. Sénégal lu mu mës tàng tàng on épargne nos kilifa diine daan leen déglu mais ci gouvernance su président Macky Sall ak dernière année nga gis ñuy xawi sutura sunu sunu kilifa diine yi ci ngay gis li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk lu ci mel ni équipe nationale du Sénégal muy ay sénégalais taxaw naan yàlla nañu yàlla nañu yàlla na nañ perte ci ngay gis. des fondement lu ci mel ni armée lu ci mel ni gendarmerie kii xam ni kenn mësul xalaat yenn yi ci ñoom ay sénégalais taxaw di leen saag di leen xas. équipe nationale aussi di football. moom moom wax ñu yi di ko jox benn partie. moom la moom laa wax ma ne la yooyu yëpp tey. daf ñuy amener à ce que en deux mille vingt quatre. Mm. le président bi ñëw dama jàpp ne le défi bi mu njëkk am c' pas seulement un défi d' infrastructure. Mm-hmm. mais c' est un défi de reconstruire la nation de rebâtir les fondements de la République mais defaat de telle sorte que notre tissu social. Mm-hmm. ñu booloowaat nekk benn. de faire de telle sorte que chaque Sénégalais, à partir de chez lui, qu'il se sent Sénégalais, qu'il se dit man, je suis et que chaque Sénégalais retrouve l'État en lui. Mais que chaque Sénégalais puisse avoir confiance à la justice. parce que man ak yow bu ñu jotee kenn rek moo ñu mën a àtte mooy justice mais tey jii sénégalais yu bëree bëri amatuñu confiance ci sunu justice ce qui représente même nos institutions joxatu leen cër parce que ñoom ñoo doxalee lu mel noonu. Mhm. moo tax ñu jàpp ni face à ce diagnostic là il faut un nom du sérail il faut un homme qui a la capacité qui a l'expérience mais qui a la sagesse de venir parce que soxlawuñu président boo xam dafay ñëw dina fayantoo mais un président boo xam ne dina jiboole askan wi dina tàppewaat xol bi dina taxaat sénégalais bu ci ne. ki nekk ba Ecolo Kédougou mhm. ki nekk ba Ndiayène Séra mais ki nekk ba Bambey wala Suger dafay xam ni man ci Sénégal laa bokk et que aw ma lu ëpp Sénégal moo tax xalifa il se présente aujourd'hui comme le président de la réconciliation nationale mais c'est le président aussi qui va replacer l'humain au cœur des préoccupations parce que nag jafe-jafe yu ñu wax yépp mhm. li ko indi mooy sénégalais bi mooy kan foog nga xam yow yaay kan xam lan ngay bañ xam nga lan ngay jomb mhm. parce que nag damay faral di wax ni li nit ki rus ak li mu jomb bokkul li ma rus nag mooy yow taxaw nga du ma ko def mais li ma jomb mooy nga taxaw ak nga ñàkk wax du ma ko def mm-hmm. mais il faut ñu tabaxaat le sénégalais tey gis nga on pal di BRT tabax ko bay waaja pare seen ñu yàq ko ñu tabaxaat ko mais senoo génération ñoo koy fay naka ngay def ba sénégalais bi bu meratee dina xam ne BRT bii kat du nguur gi moo ko moom mais ñun ñoo ko bokk mais loolu dafay commencer par état bi li yor bañ a jëlati suñu bus suñu ay matériel def ko propriétaire parti au pouvoir donc Khalifa Sall am na expérience bi am na charisme bi am na carnet d'adresse bi parce que Khalifa Sall aujourd'hui c'est plus de quarante ans de vie politique il a été député en vingt sept ans mm. aujourd'hui il est presque à cinq mandats de député il a été maire de la commune de Grand Yoff en quatre vingt mm-hmm. il est adjoint au de Dakar depuis quatre vingt quatre presque plus de vingt ans d'adjoint maire de Dakar maire de Dakar deux mandats la am mais sur le plan international c'est un consultant international il a il la Banque mondiale il a dirigé la CGLUA il a dirigé l'association internationale des maires francophones mm-hmm. donc kooku tey jàpp nañu ne il a tout ce qu'il faut pour être la prochain président de la République et que bu ñuy wax président bi war a jibale Sénégal yi mm-hmm. damay wax ni y a pas meilleur que Khalifa Ababacar Sall xam nga lu tax il s'appelle Khalifa Ababacar Sall jokku Tiwaawoon Serigne Babacar si di sëriñam mais soo àndee moom Touba Serigne Mountakha daf naan ko Khalifa sama doom la nga dem ak moom Kaolack say maa yi ñes xëcc ko mais boo duggee yoof waa yoof dañ naan la ñun ñoo ko bokk mais boo doxantoo église simple grand yof ñoom dañ naan la xalifa bokkul ci yéen ci ñun la bokk mais c'est une personne qui est née à Louga mais wàcc Dakar fële nga xam ne mooy mooy Colobane mais daan def ay vacances am diggante géej ay Pikine donc c'est la synthèse du Sénégal c'est un homme comme ça ancré sur nos valeurs qui connaît nation kooku la soxla ëllëg pour tabaxaat ko moo may jàpp ni sénégalais mais est-ce que loolu kese tamit euh, doy na hmm. parce que jamono ji tamit liggéey bu am solo la ki nga xam ne hmm. moom mooy Khalifa Ababacar Sall wala euh, hmm. coalition bi nga xam ne xalifa moo moom maanaam moo boot xalifa est-ce que amoo leen liggéey bu am solo boo xam ni yéen war ngeen ko mën a def bien vrai que li nga wax aussi tamit euh, oh. benn atu la boo xam ne am ngeen xam nga un président de la République ñett la mm-hmm. c'est le parcours c'est le profil le programme mm-hmm. wax naa la léegi ci parcours bi wax naa la profil bi wax la ci programme bi mën nañ ci dugg mais li nga posé léegi pour ñëwaat ci. voilà ça fait dix et je pense que nous sommes nous sommes la seul candidat. Mm -hmm. à avoir fait le tour du Sénégal. un an nous avons fait le Sénégal des profondeur nous avons fait boo demee gi mhm. dem ba Étiolo tu te dis qu'au Sénégal il y a des Sénégalais qui habitent aujourd'hui ci ay montagnes. tu vas dans la région de Kaolack au fin fond tu trouves des villages yoo xam ne tey jii courant amuñu ko nga dem dëkk yoo xam ne tey. oto par exemple semaine bi benn yoon lañ koy gis parce que dañuy génn dem taliba pour jël horaire. Mhm. donc sénégalais yooyu tey dañu soxla ku leen jàppale. sénégalais yooyu xalifa dafa dem ci ñoom indi li ñuy wax co-construction du programme c'est quoi la co-construction bu njëkk. candidat bi danaan danaan dem wuti ay ay expert bitim réew. ñu bindal ko programme. wala mu ñëw tëju fii ci hôtel Dakar yi bind programme xalifa ni déedéet damay dem ba Sabadola xool sénégal ya dëkk nga xam ne ñoom ñi ngi tëdd ci or. mais dund ci jafe-jafe lan mooy seen jafe-jafe. Mhm. mais damay dem ba Bambey laaj leen baykat yi lan mooy seen jafe-jafe mais damay dem ba wax ko Nguna laaj leen lan mooy seen jafe-jafe au cœur du bassin mhm. mais sénégalais boo ko dégloo mu wax la jafe-jafeem boo ko mayee nopp rek mu jox la début solution. moo waral programme bi muy proposé ëllëg. kenn ku ci ne danga nga gis sa bopp parce que yow yaa def diagnostic bi yow yaa joxe début de solution bi. et que mhm. aujourd'hui s'il y a un candidat prêt à assumer la fonction de président de la République c'est Khalifa Ababacar Sall parce qu'il a été préparé il a am ci lañ ko nàmpal ci lañ ko yar de Léopold Sédar Senghor à Abdou Diouf Khalifa aujourd'hui c'est le meilleur candidat pour diriger ce Sénégal à partir de 2024. ok euh, jamono ci 19 candidats la ñu am pour ñu war a dem ci élection yi en 2024 bi 24 euh, mars 2024. Mhm. Euh, mais dafa am lenn loo xam dañ koy dégg mooy que deuxième tour sax du am. premier tour la ñuy dem bien vrai que ne Barthélémy Diaz aussi euh, doon euh, maanaam contesté lool yi tamit est-ce que euh, jàpp nga ni élection yii nii maanaam ci premier tour kese la non man de bu ma sañoon Khalifa gagné premier tour élection mais tey ji vu configuration de l' de de de l' électorat sénégalais et des chiffres yi nga xam ne ñëpp am nañ ko. il n'y pas encore un candidat qui gagne cette élection au premier tour. Ousmane Sonko. non dama ne bokkul. dama ne tey mais son candidat. qui gagne cette élection au premier tour en tout cas au stade où je vous parle. ok élection yi passé Yewwi Askan Wi c'était nous tous. Ouais. on avait on avait xam nga tey nit ñi bu ñuy wax dañuy caaxaan. Mm-hmm. c'est tout Yewwi Askan Wi c'est tout la mouvance présidentielle mais kenn amu ci woon 51 pour cent qui te permet de gagner au premier tour. et aujourd'hui aussi bien la mouvement mouvance présidentielle c'est une multitude de candidats Yewwi Askan c'est xanaa donc tey on va vers une élection très ouverte une élection qui n'est pas gagnée d'avance mm. mais man jàpp naa ni tey sénégalais yi nañu bàyyi xel ci ñi ñu war a fal la fonction de président de la république c'est pas une fonction collégiale mm-hmm. bu ñu àndoon di dem faluñu ñun ñaar kenn rek la ñuy fal chaise bi kenn moo ci toog décret bi kenn moo ko yor président de la république nag moom mooy le gardien de la constitution c'est le premier de sénégalais c'est président de les sénégalais kenn ku ne am nga parti kenn ku ne am communauté kenn ku ne am nga sëriñ mais ñëpp kenn mooy seen kilifa ci réew mi c'est le président de la république. donc président nag mënul am kilifa. donc foog ñu bàyyi xel une présidence par procuration kooku moom munul am. parce que c'est la clé de voûte des institutions bañ nañ ko ba dañuy wax c'est la rencontre d'un nom avec son pays. Mm-hmm. donc il faudrait pas qu'on commette l'erreur de donner cette ce Sénégal là. qui aujourd'hui contexte bi ñu nekk contexte avec un sous-région boo xam ni dëkk yëpp yëngu nañ àdduna boo xam ni de plus en plus mi ngi jaxasoo il nous faut un homme qui a la carnet qui am carnet d'adresse bi koo xam ni àdduna bi yëpp xam nañ ko mais dina am expérience mais dina am capacité Sénégal delloo ko fa nga xam ni fam la ko président yi mag yëpp defoon mais fal koo xam ni tey dafay làmbatu c'est à éviter et je pense que les sénégalais maires yi ñu jóge war nañoo yaay est-ce que 19 candidats yi am kenn koo xam ne dafay làmbatu quand même. man de li ma jàpp aujourd'hui ah le seul candidat bi pare parcours bi mu am jaar-jaar bi mu am amul keneen ku ko am su dee am na beneen candidat bu am jaar-jaar bi ma la wax bu Khalifa Sall am amu ko xam nga la la laay bañal sénégalais <laughs> xam nga la laay bañal sénégalais yi élection locale yi am na ci dëkk yoo xam ni peut-être dañu toppoon riir ba fal fa ay nit mais ñooñu tey ils ont des difficultés tey j'aimerais bien que yéen journalistes yi ah ngeen dem interroger les communes yi nga xam ni faloon nañ ko nga xool ñañ fa fal aujourd'hui est-ce que lan la ñu def. l'essentiel mooy que ñi fa fal ñuy ëpp bu dee ci côté opposition bi. dama ni man de dama ni man man bas laa la wax ñeme naa défier tout le monde.

comparer ko au bilan des autres maires. Abdou Aziz Faye war nañu xam parce que démb man sama bët moom moo may euh, ma demoon foofu noonu ca Colobane. am loo xam ne gis naa ko boo fa demee euh, tey amul unanimité amul fenn. voilà ok foo liggéey dina am manquement mais ku liggéey nag ak kuy tappale yomb naa xam de. tappale yomb naa xam moo tax ma ni tey. non damay wax ni pour mu bàyyi non damay bàyyi njabootu Khalifa Sall. Mhm. tey boo demee seeni maire boo doon tànn les meilleurs maires du Sénégal doo leen ci génne. soo doon tànn les meilleurs députés du Sénégal doo leen ci génne parce que Khalifa est entouré d'hommes et de femmes de jeune et de moins jeunes qui ont été préparés pour exercer la fonction de président de la République c'est-à-dire tey boo faloon Khalifa Sall le 2 avril. Mhm. du làmbatu le trois xam na fan lay dut baaraamam moo tax il faut éviter dénk suñu réew des aventuriers il faut éviter dénk suñu réew koo xam ne dafay làmbatu. et sénégalais nag erreur boobu il faudrait jamais ñu commettre ko il y a des hommes et des femmes qui sont capables qui ont été préparés qui ont exercé des fonctions dans ce pays mais quelqu'un qui n'a jamais exercé une fonction lo même locale nga bëgg ko dénk askan sa réew mais ëllëg loola dal yaa ko tooñ sa bopp donc pour éviter tout cela meilleur profil bi c'est Khalifa Ababacar Sall. voilà campagne bi ak Ramadan bi dina nekk mbir moo xam ni mbir mu jafe la. waaw lu surtout voilà. <laughs> lu neex lay doon lu neex lay doon lu neex lay doon. dina nekk lu lu lu lu lu jafe aussi. waaw non mais xam nga nag li am solo rek mooy. nañu def li ñu war a def rek moo tax day invité waat rek man tous les candidats. Mhm. tous les états majors que ñu dem vers une campagne mais une campagne apaisée. gis nga tey sénégalais yi. benn yoon la ñu am ci juróomi at tànn seen njiit donc nañu leen may sénégalais bu ci ne dem tànn saagakat yi xaskat yi Facebook na kenn ku ne dem maintenant wane lan mooy sa candidat fi mu ne jamono jaayu lañ toll xam nga jaayu kenn ku ne man de fu ma toog dinaa wax xalifa Sall lan la mën. na kenn ku ne temps ba ma nar a perte di wax ci candidat keneen. je préfère l'utiliser pour jaay wan sama candidat te nag li ma la wax sama candidat kenn du ko dindi s'il y a bu am charisme bi. bu am parcours bi bu am profil bi bu am expérience bi man je suis prêt à le défier publiquement aussi. tënkee dinañ fi daal di dalal ñeneen ñi nga xam ni ñoom ñoo ànd ak 19 euh, candidats yi nga xam ni euh, conseil constitutionnel ñoom la daal di retenir ngir rek ñu daal di waxtaanee euh, ci li nga xam ni rek moom mooy mbirum élection yi di la jaajëfal bu baax a baax Basirou mbégte la woon seq yow li nga xam ne rek moom mooy bile jotaay. waaw xanaa di di am mbégte lool. nday ci waxtaan bi. Mhm. mais toujours c'est un bi. di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñu seetaan lépp lépp lu fi dëng rek ñu xam ni ndaw lu matul mais lu fi baax suñu borom la mm. mais di wax sénégalais yi rek nous avons rendez-vous avec l'histoire le 24 nous devons élire et non des maîtres. Nous devons choisir l'expérience et non l'aventure. Et la coalition Khalifa Président est prête à assumer la fonction de président de la République avec son candidat. Donc, di ñaan ñëpp rek le 24 nañu voteel Khalifa Président. Voilà, merci beaucoup Bassirou Samb di la jaajëfal bu baax a baax a baax di am mbégte euh, à chaque fois rek euh, di bokk ak di feg euh, feg feggoo ak yow li nga xam ne rek moom mooy bili plateau di jaajëfal aussi Serigne Fallou mi nekk ci régie bi ak toute l'équipe de Solution TV di leen jox dig daje ci beneen numéro ak keneen koo xam ne rek dinañ ko daal dalal waxtaan ak moom ci actualité euh, politique bi seen émission euh, au cœur de l'actu dinañ joxaat dig daje ci fan incha allah ak ci yeneen i euh, programme d'ici là portez-vous bien et bonne suite des programmes